yéem li ko ëmb kumpa rek la. tës tës ci Zik di journalu faits divers yi. suba su ne subitere yi dina altine ba àjjuma tës di xew-xewu jamono ci biir quartier di ay faits divers yu ngeen di nettali seen bopp yéen ñi suñuy auditeurs. tës ak Ahmed Aidara. waaleykum salaam. voilà. alaaj noonu la da ngay teel a fay dégg nga ah. dama ne. tës bu njëkk bi alaaji. tës bu njëkk bi. ndaw si day jaay ataaye buntu pikin. ñëw na ci place am na fekk na fa ay nit ñu fa ne. yor seeni laxasu yàmbaa mbuus. di ko seddoo <laughs> mu ne leen damay lal ay booru six heures du matin. Mm. gars yi jàppanteek moom mu xeex ak ñoom nag ba ni saay kenn ki. waaw nit ña fekk ko fa di àtte ni ko jugal dem. cam lom de Paris ngi moo toj Paris. Pape Abdou Ndiaye ngi l'homme de femme de Zénith. kii kii. non kii kii toj mbedd Paris ah. non may na ñu nekkoon. jëkkëram nu waatee. mooy Fatou Abdou Ndiaye. ce jour ba jëkkër jéene ko na ñibbisi. France soppeeku nga France. non soppeeku. non sa colk gi colk góor loolu la de. nee ko nee ko man sama kër ak France daanaka sorante. loolu da ngaa nuru faatu faatu nag. climat ba la kaay ma nii ma tësal la kaay. benn jigéen boo xamante ni daal day jaay ataaye ñëw ci place am fekk fa ay jaaykatu yamba. ñuy séddoo yamba ja mu ne leen pousse leen sama place damay lal xeex cee kenn ba ne saay nit ñi di ko àtte ko ba pare muy takk ay bagages am pour dem ñu ne ko leen eh, moom daal suba teel gi comme que naqari na naqari na demal ba suba ñëw jaay siwaat mm-hmm. fa mu sëgg di jël bagages am boobu fekk na moom baxal na attaayam ja ba muy bax baxi ba dara desul rek lu dul def suukar jaay. Mhm. benn waay jooju ci yàmbaa ji ki mu doon xeexal. jël potu ndaala tëbb ca attaaya jël ba ba potu ndaala fees. fa mu sëgg di dajalee bagage mu ne ko ko xëpp ca doq la keroog bi mu fi ñëwee fii digg ginnaaw gi fii ñor xaw mu la def ni ndawal. ana ñooñu. mais li ci doy waar mooy waa ji daa déplacé wu deux taxaw ak policier bi fee di waxtaan. ah waaja ko ko def mu ñëwee di wax ak policier bi ne ko loolu dama ko rus a nettali sax moom ndaw si de si meer ana kiñ lakk lu tax nag ma ñëw tey jii jaaxle rek ak bëgg ku ma dimbali tamit ci xel ak lim na dëkk bi amul yoon man ma bëgg miim loolu ba mu set wecc ndax li ma dal dafa metti trop mënu Pikine laay ñëw toog di jaay suba teel fekk fa ñeenti xale yu góor toog sama bënd kaas daane salaamaaleykum yennee ko sama bagage buntu borom kër gi la ma seet ne li ñu yore nii tamit di ko seddoo nii di ko def ci ay mbuus nii leer na ma ci yàlla ak dem na ne yàmbaala ndax sama bët moo ma ko may. fuñ def yàlla ci mbuus mbuusu cent franc yi ñaari mbuusu cent franc ba mu fees dell. def ko fan. def ko ci ay mbuus. waaw def ko fan laa foofu sama buntu place dañ ko teg ñoom di seddoo ñoom ci seen biir ñoom. ah daal di dem gàddu sama siwoor yebbi bagage yi. dem na naa rooti. ndax le temps que may rooti bay dem di ñëw xëy na dinaa fekk ñoom ñu dem pour ma bañ a seq ñoom benn wax. ma ñëw fekkaat leen fa ñeneen ñaan ñi ci des ñoom quatre personnes lañu woon ñeneen ñaan yi yëg ci scooter bi yore yeneen yu mbuus mi jël beneen mbuus mi yanu ko daal di dem yëg ci ko scooter bi yeneen ñaari des fi ma taxaw taxaw ba ci yàgg ma xam ne lii tamit du ma arrangé ma ne ko xale bu góor bi ma ne ko damaa bëgg ngeen jóg may ma dama bëgg a lal mun ma mbedd mi mbeddu mbuur la fii moomu loo ko ma ne ko bu ngeen demoon toog fii ci kaw tali ba nii bu ma leen xoolee sax man maa leen tooñ xam nga leen wala xamoo leen yow wala wala fay fréquenté non man musuma leen sa gis sax keroog laa leen sama sa gis d'accord ñaata la ñu woon ñaata la ñu woon ñoom ñoom ñeent la ñu woon mais ba muy egsi noonu ci la ñaar ñi dem yore beneen mbuus mu dem mm-hmm. yeneen ñaari personnes yi daal fay des mais wóor na la yow affaire bi moom la yàmbaa la bu ma wóorul woon kay du ma ko wax. waaw yow nan nga ko nan ko nan nga ko xamee. Ah, ma koy xamee xanaa yàgg ci dëkk bi tamit yàgg koo gis rek. non non dama bëgg a wax ne xam nga yow dañu la sori wala dañoo ne fekk ñu toog yore ko foofu. ok voilà ndax nit looy wax dafa war a leer naa ñi. la waaw nit da ngay leeral ba mu leer naa ñi ndax te même même bu dul doomu aadama yi sax nga wax ko diggante ak yàlla. Mm-hmm. ndax bu ëllëgee yaa yàlla di ngeen wéet di ngeen wax. d'accord léegi après ngeen. voilà ma ñëw xal bu góob bi doo ma may ma lal mu ne ma lan moo tax man may jóg fi ma toog ma ne ko axakee da ngeen war a jóg ndax lii ngeen yore nii lu bon lii ngeen yore nii xam ngeen ne man du ma nangu ngeen installé ko fi séddoo mu fekk leen fi man nii ma toog ko xam ngeen ne loolu di ngeen doon ma ci boole te bu boobaa man tamit xaw ma naka laay def ci àdduna ba mucc ah kon fajar gi la fajar gi la ay 6h45 7h daal pile hmm. instant boobu la rek maa la ko tey mënoo leen waxoon simplement rek ni leen dama bëgg ngeen abal ma plan sans plan parce que sama buntu place ngeen toog au lieu a wax ah. ndax mbedd mi mbedd mbuur la man loolu laa a wax loolu tax nag man ngeen seen lu bon lii ngeen yore nii di ngeen jóg sama buntu place mun ma ñun duñu jóg nangam ndayam ndax yow sam suñu bagage yi ngay tudd ci sa jëmm bu rëy gi da ko war a téye te nga lijjante say affaire te nga bàyyi suñu affaire parce que sama génn day li muy rëy sa génn ko ëpp téeméeri junni mu ni bërit jub taxaw benn morom na ko ii moomu daal na bërit jub taxaw ba ma bitim loxoom damaa këpp ci suuf ñu xeex ma nag moom xeex xeex xeex ma nag moom ma gañe ko gañe boobu ma ko gañe waaw xam naa ne naqar na ko naqar na tam ci tamit mu ne ko waaye yow boo yow jigéen rek moo lay éliminé te da ñàkk fayda waaye jigéen rek moo lay éliminé mu daw rek songate ma su ma dawatee song ma ñu nekkoon ci arrêt bi ñëpp àtte ma na ma yow ñun dañ laa xam looloo tax dañoo bëgg ngir yàlla ak jëmm yonent bi nga ramasser say bagage nga dem ñibbi te xam bu naqadi bokkut ak bés bu neex ba pare yàqu na ñun duñ leen àtte ñoom ndax ñun xamuñu la yow lañ xam dimbaliñ ngir yàlla ak jëmm yonent bi nga ramasser say bagage nga dem ñibbi ma boole li ma neex ak li ma naqadi yëpp ma ne naa dem ñibbi fi ma sëggee nii di jël sama dàll bi wadd ci suuf mu ne caas potu ndaa li ma doon tànke ndox potu ndaa li may tànke ndox man mu ne caas potu ndaa li man gisuma ko de dugal loxoom ci biir attaaya ji fan ko ba mu fees dell ñu ko yuree ci sama digg gannaaw boobu attaaya attaaya ji ñu togg ba mu des suukar ba laase attaaya ji sa sàpp suukar man heure boobu laay jaay ataay man àdduna yëpp xam nañ ma maanaam daal ko ataay ji da doon bax moom togg nañ ko ba ñor ak suukar sax ataay ji di bax ak suukar seeg lépp ci biir moom la tax sa pot ba mu fees dell sotti ko ci sama digg gannaaw dama senkaliku première daw ma naw topp ah ak Fatick ba sama yaram bi yëpp a yàqu sama yaram bi yëpp yàqu mu daw sama digg gannaaw gis nga ko ni mu xollee ko nii ba yàqu nii léegi après nga dem daw topp ci ko ma yëgu ko ba métti gi xanaa man la xaw ma sax lan moo ma dal man boobu sama yaram tàng na ma daw ñu ne xale góor toppoon sama ginnaaw ne ma yow sa yaram bi yàqu na sa yaram bi yàqu na lu ma laal rek dara bi topp ma sama yaram bi yëpp laawee lu ma laa rek dërg topp bi mu daw ba gis policier bi ci angle bi mu taxaw mu mu rondel policier bi taxaw policier bi ne ko waa yow Moussa yow tey moom am nga plaignant di mu ne ko waaye ndaw sa dama indil ay ñol ñol tey ji suba teel gi ni xeex ak man ba pare gaan bëgg maa toppaat mu ne ko lan la mu ne ko kañ dem see ma expliqué la policier bi topp ko kon bëgg laa toppaat cela veut dire que lay sosal ci kanam policier xaaral rek ñu ànd ñoom ñaar dem ba ci wetu jàkka ju ndaw jooju noonu ci station bi mu dem taxaw expliqué ko expliqué ko ba mu jeex tàkk policier bi ñëw fekkaan na fi ma taxaw yow soxna si lan la ma bëgg expliquer mun ma noonoo ça va ça va ça va ma ne ko ah doo bàyyi man ma wax la mun ma noonoo ça va jaru ko. maanaam feesal na ko ba mu fees. waaw mun mun ma ça va jaru ko ah ma daal di ñëw taxaw mu ne ko Moussa yéegal mu ne ko man sax dama bëgg a dem mu ne ko yéegal mu yéeg ci kaw scooter bi ma téye ci scooter bi ba mu dëgër mun ma yow lu tax nga laal sama scooter yow ban autorisation kan moo la may autorisation moom policier bi kan moo la may autorisation pour ngay laal sama scooter ma ne ko scooter bi doo ci yeb waa ji di ko yóbbu du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg xanaa tey dañ may diri ci digg tali mais doo ko ceeb tey kii di nga ko bàyyi tey ñu dem si yoon man ak moom mun ma boo laalaatee sama scooter dinaa def noonu sa ndey Mamadou Saga barke Sëriñ Babacar Si man xaw ma ah, bu fekkee ne moom déglu dugg laa déglu te moom faral na ko mun ma bool arrêté sama scooter ma def noonu sanday ma ne ko ma defaat noonu sanday moom policier bi mun na jël loxoom fëgg ci dënnam man ngay saaga nday man ngay saaga nday mënu ko tënni di nga sol moo gën sama yére bii waa na yow gënoo ma nday yow ba ma saaga nday dama la koy delloo ba ci digg yax ndax kii li ma def nii ma ne ko bu ñu ko defoon sa rakk bi nga bokkoon nday ak baay ñu def ko sa jabar tey jii ma ne ko dina la naqari ba si kanamu yàlla li nga ma def nii dinañ ko taxaw yow ci kanamu yàlla sunu borom mu dëgg première daal di dem na ma on verra mu ne ko yow dimbale ma nga naa ma on verra ñu dem man ko ma nan lay def ma jël taxi topp leen am xalé yu góor yi taxaw dama topp leen bu leen soxna si yow say ram bi yaq na ma dugg si jël taxi fay ko téeméer ba ci dund police ñu dem ba ñom ñoom passé police bi jubal ci dem ba bëgg dem virage jumaa ja mu ñu xam ne man maa ngi topp maa ngi ci bon taxi bi ñu defaat demi tour wañeekuwaat duggaat ci biir police bi ma fekk ci biir police bi ma ex rek daal dem ubbi benn bureau inspecteur rek fël bunt bi daal dugg si biir ànd ak moom mu sax na ko kaay ñu dem ñoom ñëpp ñu daal dugg si biir waxtaan seen waxtaan wax wax mën a wax daal di génn naka la daal di génn mun ma waaye soxna si yow qu'est-ce lan la. kan la parce que keneen wala même policier neen ma ne ko lan ba mu jeex tàkk léegi foofu policier bi mooy mooy comme adjoint commissaire daanu ko ee eh, boykat ne mi ngi si bureau benn inspecteur foofu ñu daal dugg si biir ñoom ñëpp tëju ci bureau wax wax wax wax wax ba daal di jeexal ma daal di génn naka la tëll bunt bi génn rek ma mun ma yow soxna si demal nga génn nga dem faju ji hmm, waaw dama nga faju ji sa yaram bi moo gën nga taxaw fii rek di wax nii rek ah man tamit ma daal di génn dem bi ma demee doome ni ma rang ba sama rang biir naka laa ñëw toog xale bu góor bi na ma yow yow yaay Béti Ndiaye yow ma ne ko waaw mun ma kon demal si beneen bureau bale xool ma sepp la ma ne ma yow yaay diw ma ne ko waaw mun ma kon demal si beneen bureau bale ah ma jóg taxaw daal dem si bureau boobu mu taxaloon ma egg si mun ma ah yow yaay jiw ma ne ko waa mun ma a toogal loo bëggoon certificat médical ma ne ko waa certificat médical mu na nii ah, a njàmbur ma waa certificat médical bi 15000 laa koy defal ma dindi 15000 ci sama nafa rocc ko jox ko ko man mun ma waa sa certificat médical bi yow di lakk bi garaawul 11 jours rek la mën a am yaram bi ni mu ñoree koo yëpp kon ma ne ko léegi dimbali ma ngir yàlla s'il te plaît madame nga jox ma sama xaalis ma dem fenn ndax lii sama yaram ni mu mel nii boo ma bëggee defaral 11 kon lii xanaa kon kenn du ko rek li ma loolu daal nga mën a mun ko jox ma sama xaalis mun na ma pare ba ma enregistré ba pare mënut a ma boole li ma neex ak li ma naqari te xam na yëf du fii ci kaw la ma génn sol sama daal génn dem sama yoon kon kooku dañ koo convaincre moom tam ah, xam waaw eggale xam nit daal man daal ci li ma yaakaar daal après gis-gis daal. d'accord léegi nag ngeen mujjee rafet. voilà ma daal dem na génn man dem ci police ba kon am naa droit man delluwaat ci police boobu yóbbu certificat médical bind plainte ba xam lan la ci commissaire di wax ma dem ñu ni ma waa ji bàyyi nañ ko mu def ji moom mu liggéey sama yaram bi ni ñu di ko bàyyi mu dem mun waa ndax dafa yore liggéeyam di ko liggéey kon nañ koy bàyyi moom mu dem jotoo leen nettali ci yàmbaay xanaa buñ ma bàyyee ma wax ok buñ ma ma wax lii ma wax ak yow nii dinaa ko waxaat ak malaaka ci sama biir bàmmeel man ya waxuma pour bëtu doomu aadama waxuma bëtu pour lenn waxuma tamit pour ku ma dimbali wala pour ku ma defal lenn mais injustice bi ci dëkk bi man man moo a jaaxal dëkk bi boo nekkul grande dame solo fi grand mbubb bu rëy nekkoo fi kuy jaay sa bopp kenn du la saaga. ba nii nii ba naax saay na nii. li nga la naax saay nii dama mujjee bindaat beneen plainte yóbbuwaat ko tribunal dem si procureur déposé ko foofu ba xam ndax dañ na dëkk bi amul yoon mais loolu c'est faux loolu du dëgg. léegi am fu yoon féete ak fu yoon féetewul man moo tax may topp tribunal bi. d'accord yaa ngi tribunal affaire bi fan la yem déposé naa ko. foofu ba pare mais leen dara lu leen neex la ñuy def loolu boo leen neexul neexuloo leen tamit. mais depuis boobu est-ce que yow yaa ngi yaa ngi xëy si di liggéey ak yooyu. non man ma fa dëgg yàlla ko. mais yaa ngi man maa koy faj nag moom. Mm-hmm. man maa koy faj def leen nii daal sonn naa daal ba fu sonn yem te dëkk bi daal man li fi nekk léegi daal xaw ma lu mu doon xaw lu mu doon xaw ma lu mu daal ñu mën laa lijjanti say soxla est que ah. Mm. Mm-hmm. dama ne. Eh, Sibeer. alaaji ñaareelu tës bi. Mm-hmm. xale bu jigéen bi fukki ak juróom-ñeent la am. 19 ans. waaw. yaay ji ne ko dañ lay may diw. xale bi ne ko man nobuma diw. jeex na. yaay ji ne ko nag dinañ la ko may far force. Ah. gone gi insisté bañ. yaay ji jóge dëkk ba laa ñaar. <laughs> ca ñëw bu fii fekk xale bi fi muy liggéeyee ci kër njaati jëm xale bi dey bindu di daan dooleem. jànq la day daan doole waaw yaay ji di ko fa bëgg a dóor ñaata gi li ne ko di ko dóoree feneen ba mu des sama kër waaw du wax ngeen ne di ngeen ko mayee par force yaay ji ne ko kooku boo sëyul ak moom man dina ma jaral sax ma xaru waa laaj lii lan la nag ndokk islam sant ko loolu de moom ndeyam jooju di wax ba mu gisanteeg bàyyi gone gi est-ce que dañ ko koo forcé woon ruux ko ko ne ko di nga sëy ak moom ndokk alaaji coow la mooy may nañ ko ko ca njébbale ga tamit coow amati fa kon may nañ ba jébbale ko. mooy yow yow yow ñu lay joxeeb soxna nga nga nga nga war koo jébbale te yow kooku. nee na bëggu la. ku ñu ko jébbal sax amul fula. du ñëw Dakar. waa ñoo leen di bokkee bay bokk lal ah. si mère gi ñuy maye par force. sama papa na man donc ak samay mag noo fi nekk ak sama yaay benn nopp la lu mu ko wax. dimbale ma ngir yàlla dañ ma may koo xam ne bëgguma ko léegi kooku tamit nee sama yaay nee na ma sëyu si moom dina def neneen ma ne ko man kooku bëgguma ko wax dëgg sa yàlla bëgguma ko léegi nag man ma bëgg ku ma si affaire bi dañ ndax sonn naa samay waajur ñoom ñëpp nee nañ dinaa dem sëyi te man bëgguma kooku sama yaay nee ko man bëgguma ko ba bi nee ko bëgguma ko mu ne ma lu tax bëggoo ko ma ne ko dama koo bëgg kooku mësuma koo gis xaw ma ko man bëgguma ko mu ne léegi yow sama xëy sama xëy ak sama ngont donc mëtu si mëtu si yow ma du ma la de dina dem sëy ma ne ko man de dëgg yàlla doo ko defee du ma gën a ndax bëgguma ko lii sa bëgg boobu ñu ngi koy waxee dafa metti man <laughs> waaw oui ma yow lan mooy sa problème nga ni lan moo tax moom yow bëggoo waa ji daal dama ma bëgg gis yow 19 ans te mosoo gis benn góor bu la neex wala dara dara dara. Mm, mm, mm. d'accord léegi nag ne moom xale la wala mag la. moom xale la man xaw ma ay atam. am na jabar moom amul jabar. amul jabar muy moom xaw ma sax muy liggéey. waa kër sa yaay ñoom bëgg laa choisir kooku ne dañ la koy may. ah man moom loolu moo ma jaaxal man du ma waxee ñu ne ma il faut nga dem sëy de kooku bëgguma ko. kooku sa mbokk la. sama mbokk la man dégg man laay xaw ma mbokk mi ni mu demee. wax dëgg yàlla de man bësante naa ak sama xaw depuis ñaari at mu ngi nii ñu ngi ngi noo ko may de man kooku bëgguma. depuis deux ans ñu lay proposé waaye. maanaam jébbale la la mu jébbale ma daal jébbale la waaw ñoom danoo foog sa mu jébbale nañ la waaye dëgg def na ko waaw waaye def naa ko ndax benn yoon boobu la ñu jébb na dama laaj bëgguma ko mm-hmm. te sama yaay nee na ma ma sëyu si kooku moom dina dem dina lay bopp dama sama yaay du lay kon dinaa ko topp maanaam daal yaa ngi ci mariage bi. maa ngi ci mariage bi de mariage def fa ñaari at ci la daal. ñaari at nga ba fii mën nga waxee yow mënoo tax mënoo fexe ba waa ji neex la. déedéet est-ce que ah, ne. daal du jëndal ñes. bu yàq daram nag bu yàq daram waxal rek. ah man yàq ma mais man li may wax dëgg la barki yàlla maa jëndal daal ne daal liggéeyul moo tax mu ngi liggéey ah moom nee na mu ngi liggéey waaye man dëgg dëgg sama ma lu muy liggéey waaw nu mu ko ma na lu muy jaay di ñëw day dem Malika di di dem di ñëw daal yaa ngi sëy ci këram yaa ngi ma man sëyeeguma ndax man waaj bëgguma ko ma ne la la mm-hmm. ma ne ko ah ne ma damaa bëgg nga dem ba si mbokk nga waxtaan ak ñoom léegi ma mu lay jëmbale kon fan la fan la la yóbbu koo dem fu ngeen nekk foofu mu ngi suñ kër ah, ñoom dañoo dafa ñëw foofu man yéeguma sax man yéeguma mu jékki-jékki dañ ñëw forcé ma ñun dañoo am fu ñoo dem sax sama xarit yooyu dem sama mag ak sama doom bàyyi mu dem bàyyi ma si kër gi ma dem ngeen maa ngi ñëw fi ñuy demee peesu ñu buntu sama yuuxu yi ñu daw ñëw ñu ne gu ma daw dem sama kër ma kooku ma faraa fanaan ba yenn ba maa nara ñu xëy ñibbi si ñu ne ma déedéet sama papa bu ndaw woo ma ne ma toogal fii ma toog waaw waaja daal yow la neexu ma la a mais laaj bëggul waa ji ñu ne ko dee dinañ ko ko may te nee na waa ji daa ñaaw ñuul de de mais yow mais loolu viol la viol la de mais loolu viol la waaw forcé la mais alaaji soxla sa borom kër wala soxla sa madam bis boobu nekkul ca bis ba nga forcé ko alaaji bépp xeetu forcing ci wàllum sëy. viol la dëgg am na ci viol am ci. Ah. Euh, xam nga lii nag femmes juristes yi aussi il faut ñu wax ci. waaw ah, kii di xale bi foo ñu taxawu ko ah oui euh, madame Fatou Kiné. mooy présidente euh, kuréel gi njaboote juriste yi. yu Sénégal ah. waaw waaw waaw. madame Fatou Kiné maa ngi lay nuyu. maa ngi am Amady di nuyu sa auditeurs yi. Ah, kon dégg nga su ma juumalee kon tës bi xale bi daal yaay ji nee na ko dee dinañ la may diw moom nag bëgg ko ba yaay ji dem na sax ba di ko menacé ne ko boo sëyul ak moom man ma dem xaru ci waaw nag eh, doy na waar daal. Euh, mu bëggoon tàmbali ci gërëm la bu baax. waaw xam ne ñu nga tës. ak kaa bi. parce que dafa di loo xam ne lii dañ koy dégg lu bari bari bari. muy ñëw ci suñu makkaan yi ñu teg ngir ñi nga xam ne dañu nekk ci soxla am ñu mel problème yu ñëw ci ñun ñu jàppale leen kon moom xa jànq boobu su ñëwee ci ñun soob yaa ñu koy ci jàppale ñu am tam numéro boo xam ne bi mën nañ ci woote di ci fay dara ñuy 800 805 805 li ma bëgg a wax mooy dëggal li nga wax loolu attendez s'il vous plaît euh, kii euh, madame la présidente 800 800 805 805 voilà mooy numéro vert bi ah waaw mooy lundi ba vendredi lundi ba vendredi merci continuez. 9h ba 13h 15h ba 17h30 ku ci woote doo fay dara ci dina ci wax li nga war a xam yëpp ci wàllu yoon ok ok ñu bëgg dëgg li nga wax ne kii li ko def noonu. waaw su dee ci këram egg na ci moom siif la. siif la. mooy li nga wax mooy viol siif la. Mhm. Mhm. te siif tëj kaso. mooy mhm. daan bi. juróom dëkk ba nit sax euh, fukki at. te su dee dañ ko tëj ci néeg dañ koy siif ñu séquestration war na ma tëj kaso ju ñu xaw fukki at ba ñaar fukki at. Ah, mais bu dem nañ <laughs> mais bu dem nañ ba alkhairi ba jib nak mom est-ce que dinañ la atté comme violeur yi jël nit rek séquestré ko. loolu la ñu jàpp ne parce que ni nga wax noonu moy euh sif moy moko ci france ndax noonu lañ ko dindi ci code pénal bi. Mhm. après man tekki ko ci wolof moy tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit. Mhm. commis sur la personne d'autrui par violence contrainte menace ou surprise. moy mhm. bépp egg ci jambour bo xamné bi Mm-hmm. da nga ko da nga ko bunduxutaal. da ko mm-hmm. da nga ko forcé. Mm-hmm. wala da ko da ko tiital. da ko euh, nu mu tudd sax euh, menace mooy. Euh, jaay doole rek menacé ko tiital ko. waaw beneen bi tam mooy nga bett ko. kon léegi boo ko boo ci def rek. ngir egg ci moom loolu siif la. te loolu soo ko defee dañu ne kum ci mën ci doon kum ko mën a def kum ci mën ci doon mooy loolu mën na am diggante jëkkër a jabar Mm-hmm. tëkku voilà menace lay tëkku. Mm-hmm. mooy ñu tëkku li ne ko lii soo ko defulee li yàq li mooy ci fekk. kon tëkku itam soo bëgg soo tëkkoo nit ngir nga egg ci moom ku ko def itam euh, kii la lu ma tudd sax. siif la mm-hmm. te ñoom ci jàppale itam ay complice la ñu ci war a boole dem itam dañu a teg ay daan kon boobu mooy bëgg ñu li ma bëgg njëkk a wax mooy ñi nga xam ne ñu ci situation boobu. mooy ñoo ñu la te nangoo ko ñu forcé la. egg ci yow tëkku la ba egg ci yow dina jàppale yow suuf na na mën nga ci dem mën nga ci dem. kii def loolu ñu. ñi nga xam ne jàpp nañu kii sama jabar la su ma neexee ma def ko noonu. Hmm. nga xam ne kooku yoon su ma yóbboo ci yoon. Hmm. dina la dina kaso su dee su kii bi tribunal bi. dafa ñuy wax <laughs> léegi daal léegi daal madame la présidente. waaw euh, kon daal xale bi mun nañ ko daal mettre en rapport ak ak ak yéen. dama bëgg rek daanaka ci. Hmm. sëy boobu sëy fii sëy amu fi. ok ci moom nga xam ne sëy amu fi. dañ ko war a annulé ndaxte fii li ko lan li ko lan. waaw lu njëkk ci li ko lan mooy consentement mooy kii kii ki ñuy kii war a sëy mu nangu. oui ñu góor ñu jigéen kon fii moom sëy amu fi te siif am na. dëgg la d' accord euh, mais waaw madame la présidente. allo waaw loolu rek laa bëgg a wax ci tënk koo ne am na ñeneen ñu bëgg a dugg. d' accord ñu xam ne daal moom kooku su ñëwee ci ñun dinañ ko jàppale ci fànn bu nekk bu mu am dara lu mu ragal am dara lu mu tiit dinañ waxtaan itam ak ay mbokkam. Hmm. xamal leen ne hmm. sëy mbëggee la ko lal. alhamdulilah ñu forcé keneen ci sëy néegu sëy dafa xat. trop kon nu ñu bàyyi di jël naa léegi yow na nga kii ndax kii moom ma neex wala kii mooy sa mbokk wala kii mooy borom alal bi. d' accord sëy mbëggee ko la euh, présidente kon ñu ngi lay gërëm di la sant Zik FM jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup euh, euh alaaji hmm? dañuy dess ak ñi nga xam ni ak ak yelleefug doomu adama ba ba légui parce que euh, mais mën nga mais mën nga woo xale bi ki ñëwoon Codé Dior mu ñëw femme. dañ koy woo ndaw si boole ko boole euh, femme juriste parce que dundam mën na cee yàqu alaaji. mais waaw yow mané la mané ni. Hmm? viol la. viol nak mom mën nga ci jëlee gañu waaw mais yow alaaji jànq buñ la jox mu bëgg la nga bëgg ko rek comme que njébbale ga kay mooy am gaañ ba deret di ca génn ci loo leen juboo d'accord ca dem ca hôtel moo xam ci biir kër gi la bàjjeen yi kontaan comme que foofu la deret di tuuru alaaj ndaw sa yuuxu saliiru asamaak boo xam ni forcé la nag ah wallaahi <laughs> yow lii kenn moom nee na bëggul non seulement bëggul mais kanam waa ji da koy tiital. ñuul na teg ca moom sax nee na naam ñuul na moom. waaye nag la muy ñuul yépp kee ko gën a dar. ak ñuul ñaaw te bugg ko xam nga alaaj yi mën nañ laa force may la koo xam ni am na xaalis. tëdd xam ñu force may la koo xam ni lu bon bon rafet na yëpp mën ngaa bañ ndax yooyu yëpp du sëy mais kii amul xaalis xamoo ko doo ko dégg. du la woo du la jëndal dàll. ñuul la ñuul la ñaaw na yooyu yëpp dajaloo ñu bëgg ko boole ñu bëgg ko boole da ko ci néeg. de dañ lay rey ba pare yaa ji ne ko boo d'accordul nag moo def ca sa xaru. na xam ndaw non ndaw si. yaa ji billahi bu bu xaroo lakk de <laughs> bu xaroo xam. ah laaj ku rafet sax boo ko bëggul baaxul ci nekk fa laa ku ñaar <laughs> surtout waa bu nekkee mag xale bi nekk fukki at juróom-ñeent dix-neuf ans. dëgg fa yàlla nga bëgg nga ponk mu ñu lëndëm ci néeg bu lëndëm. ah non <laughs> lan la. <laughs> man lal bi may fanaan rek nga xam ne <laughs> léeg-léeg ma wàcc naa damay sieste bëri mu daanu <laughs> lal ni mu ndawee dafa ndaw waaye ñu indi la kenn rek teg ko ca wet ga mu nga ñuul ñaaw dar ëpp la doole ëpp la doole du la mu waay waay alaaj lii lan la léegi ah waaw euh, madame Sakho bi ñu doon bëgg a jël nag moom pour euh, pour bu njëkk bi. waaw njëkk bi aussi nag alaaji kaala. non booba gën a métti. kaala parce que ndaw si li mu wax moom extrêmement grave. waa ji maa ko gis mu yor laxasu yàmba. un deux dem taxaw ne ak police ba wax ak moom ba pare police bi dikk saaga ko. Hmm. moom ndaw si nga xam ne lañu lañu lañu lakk ataaya ja. waa alaaji loolu doyul waar. dëgg yàlla. kii di ma yónnee message naan ma commenté wu leen ci ndax ah? ah waaw ñoo bokk fi ñu liggéey ah ci bii la bëggoon wax ah ok maître Assane Dioma Ndiaye laa laa laa doon woo ci commencement tës bi laa doon wax ne bu dee nit jege na ko. waaw ci bii laa ko bëggoon a dugal. waaw waaw waaw ci bii. ci bii laa ko bëggoon dugal. waaw ah yónnee message naan. da ngeen am xaritu policier moo tax commenté wu leen tës bu njëkk bi. yow doo tey waa ndokk nañu am xaritu policier. on n'est pas là pour attaquer les policiers. <laughs> policiers ak ñu ne am ay citoyens sénégalais ne def sa liggéey pourquoi ñu ku ci deful ku ci deful sa liggéey tam ñu teg la ci siraat mustaqim mais alaaji dama dama ne li femme bi wax c'est grave. Hmm. nee na waaja policier bee ko jël teg ko ca scooter am moom mi lakke yóbbu ko ba ca police ba <laughs> fa toog moom ca biir bureau ya ñu koy wax ñu ne ko yow doo ko fi waxee. alaaj loolu luy ndeyam nag. police bi nga xam ne moom lañ dénk ne moo yor suñu kaaraange jubóole indi ordre ci mbedd mi dañuy bañ ba manifestation bu amee bu ñu amulee takk der yu mat préfet daf naan manifestation bi du am ndax amuñu police bu doy du loolu. Hmm. mat su boo amee bu policier ñëwul mat suba du tàmbali. làmb su amee su policier ñëwul làmb ji du tàmbali. waaw nu ñaar bi xeexee nag léegi nag alaaji nag police ba ne ñiix nag jël kenn ka teg ca scooter am yóbbu fa toog moom ci bureau loolu teyul xel. Hmm. Ah? ah. waaw ana dégg ak Ablaye Daouda Diallo Ablaye Daouda Diallo yi tësën bii de tësën bii. ministre de l' intérieur ñu togg ñu togg ko ba mu ñëw wala ñu am ñu becci ko léegi am ñu. nañ ko becc kay. nañ ko becci. nañ ko becc léegi nii. <laughs> kii wër di ne yónnee Mansour message naan ko mooy ministre de l' intérieur. Simeer yënga loolu benn waaye yónnee message woo Mansour jotu ko ne ko je suis le ministre de l' intérieur Abdoulaye Daouda Diallo message baa ngi nii Abdoulaye Daouda Diallo ministre de l' intérieur du Sénégal. yaa ngi maa woo démb ministre de l' intérieur. balaa ni ko ok ala dégguma. wax ko ma mën a répondre ni ko. Euh, ndeke du moom. déedéet. ma daal ni ko ma daal ni <laughs> euh, mun ma mun ma je te plus tard. dégg réunion hôtel bi. moom mu ne ma je te rappelle man ko d'accord waaw. <laughs> après moo waat ko mu coupé mu oo ko <laughs> xam na ni xam xamee naa baatu Abdoulaye Daouda Diallo. <laughs> ma ne ko sëñ bi nga baal ma. bi ma koy bi maa ngi toog ci bureau sama bu nekk Sénat assurance bu tudd Souleymane Diop ñu àndoon màkk 2011. waaw ma jaaxle. ministre bi nu ma mën a wooyee soxla ma ma koy woote ma daal di kii daal di koy envoyé message bi rek. Mm. alaaji mu ni mu ne ma oui c'est lay Abdoulaye Daouda Diallo mais je te rappelle plus tard je suis en au Terrou-Bi boobu ba léegi déggaatuma Abdoulaye Daouda Diallo mais chef policier bu ma soxlaa waaw mais alaaji waxuma loolu de alaaji waa ji yow toppandoo police rek risque la toppandoo ANACIM rek risque la njiital police bi waaye yow léegi nag ñoom ñëpp seen patron nag nga dem nga ne nag moom ngay bëgg a dëbb. 715 numéro bi. ñu bul wax numéro bi alaaj doucement rek. wax naa ko ministre de l'intérieur. yow da ngaa laabir nag yow. non non ko waxee koy dañ koy jàpp de. doucement rek dañ ko jàpp kay. waaw non affaire la bàyyil mu sedd. nañ ñaan nañ ñaan te dem te ñaanal waa seen docteur. yàlla na leen fi yàlla. xaaral woo ko léegi nii. 715 32. di di alaaj bu décroché ma wax. yàlla na leen yàlla suturaal alaaji yàlla na ñu yàlla aar alaaji da ngaa lewet nag trop alaaji yàlla na ñu yàlla jàppale. yàlla na ñu yàlla. alaaji da ngaa lewet trop alaaji. seytaane. alaaji da ngaa lewet trop ah, waaw waaw nee nañ ko jàppale ah suñu dëkk bi ah. alaaji da ngaa lewet trop très bien. xoolal coupé na ma waaw ah, coupé na waaw. léegi nag coupé nga ma dinaa wax si numéro 715. 32 alaaji alaaji bul wax waaye si numéro bi waaye yow s'il te plaît bàyyil bàyyil rek alaaji del jéggale yow it nag. waaw ah, waaw daañu ko jàpp maa ngi jox léegi waaw waa digg waa digg ñu jàpp xam nga léegi d'accord nuñ koy jàpp ñu dem jàppee ji fee moo gën fii nga xam ne rajo la adduna yëpp bu koy déglu mbokkam yëpp xam ne ndekk tëddiw dëbbkat la suturaal ko yow it ma jeexal man sama chaque jour ñaata message laa lay woon ñu may saaga fi est que dinaa weer numéro yi fii ci antenne na mënu maa muñ sama xaritu maam yaay xaritu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla na ñu yàlla dolli sutura ñu nekk ci prison yàlla na leen yàlla jàppale ak ñi feebar ñi jiitu yàlla na leen yàlla xare àjjana réew mi alaaji yàlla na fi yàlla dool jàmm suñu diggante bi yàlla na gën a ratax gën a neex ñu am ay waay am ay soxna yu baax yu yaru taaru lool tànk yu gàtt làmmiñ yu gàtt <laughs> loxo yu gàtt bët yu gàtt am nañu ko kat nañ sant yàlla waaw yàlla nañ sant yàlla yàlla ñu yàlla sutura suñuy soxna baax suñu yar jóob tamit yàlla na ko yàlla sutura jàppale ko waay barke liggéeyam bi la si maire bi nga xam ne moo ñuy ñetteel du noonu yàlla na ko yàlla dolli jàmm def ko ci bépp jullit tamit yàlla na yàlla dolli jàmm daal ci biir yàlla nee na a bëgg ci moom foofu dégg nga loolu si maire mooy dem Màkka moo tax ma ne ko futur alaaji si maire Diop moo nekkoon ci xarale gi jël baal <laughs> yéen alaaji Mansour <laughs> moo nekk ci kaa gi sama xaritu maam bi dégg nga ak Serif Ahmed Aydara Karara borom adiya baa ngi nii toog borom daamaar ju bees yaa ngi nii toog du noonu ah, di leen jox kon dig daje <laughs> suba incha allah. tës Zik FM di journalu faits divers yi. suba su ne suñu tëri dina altine ba àjjuma tës di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. tës di ay